loolee di liggéey bu am solo boo xam ne Serigne Isaaxa Mbacke moom ba siiru mu ngi koy taxaw di ci liggéey liggéey bu am solo ginnaaw yaatal goo xam ne def na ko ci bitim réew ci mbooleem daayira Maam jaar yi ak fédération yi loole nag law na ba ci biir réew mi am kuréel gu yees goo xam ne taxaw na fi bu yàggul rekk ñi nga xam ne ay xaritu sëñ bi lañ ay soppeem ay wëllëreem ay jegeñaaleem ñooñu ñëpp tàbb ci biir kuréel googu lépp rek jëm ci parinage bi ak gën ko yaatal ñoom nag ñu jot a dajale lu toll ci juróom-ñetti millions ak lu teg ci sunuy koppar tey jii ñu demoon doon ko jébbali Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général de murit ku ne xam na ne Serigne bi daara maam jaara da ko ñor lool ba tax na saa su ne Serigne Isaaxa mi nga xam ne rakam la te jiite fondation maam jaara bi di ci taxaw taxawaay bu am solo. te lépp loo xamante ni initiative la mu jëm ci liy jumale daara ji kanam sëriñ bi da ciy taxaw. liggéey bi nag biñ ko jébbalee sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou bég na ci bég am solo waaye it gën leen a ñaaxaat te ñaanal leen ñu am ndam ci liggéey bi nga xamante ni ñu koy liggéeyal soxna Jaara Bousso bi ñu agsee ba jébbal sëriñ bi àddiyee ji. sëriñ Moustapha Dieng yëkkati na fay kàddu ci turu sëriñ Isaaxa Mbacke moom sëriñ Basiiru ginnaaw kàddu yooyu it sëriñ Muntaxa Mbacke moom sëriñ Basiiru xalif général des Mourides moom it yëkkati na fa kàddu yu am solo kon ñu ànd ak yéen ci mboolem kàddu yooyu le ba jiitu ci. ba nga xam ne kenn duñu dinaa doon koy woote itam kenn duñu ci jiitu loolu nag moo taxoon ñu amoon ñu ñu ay bokk yeeg. Eh, yenn ci wëllëre yeeg yooyu dañ defoon benn groupe Moustapha dina ko leeral léegi ba am lu ñu joxe eh, loo xam ne ni moom lañuy ñuy tàmbalee ren eh, xam naa dina war a mat huit millions nga xam ne ni moom ko waaye li ci xam ne moo tax mu jóg moom moo doon rek jéem a roy ci li ngay liggéeyee sa liggéey waxtu ne da ngay koy wone da da nga cay nekk nit ñi fekk la ca waaw kon nag lii itam ginnaaw ci ndigal la nu bëgg ci eh, bokk itam ba nit ñi gis ne moom itam ni ngay liggéeyee na nga koy jéem mooy nekk ci ba ñeneen ñi itam fekk na ca loolu moo waral loon lii naa la gën a leeral rek la ci lu bari naa ci njiital sëriñ Isaaxa ak ñi àndal eh, jotaay bi nag li ko waral mooy moom ginnaaw dafa demoon ci àll bi mm. ab liggéeyam féete foofu mm. am xalaat boo xamante ni dafa leen ko xalaataloon te muy li ñuy tudde ndeyu daara mm. bam leen koy xalaatan dafa leen a xalaatoon ne leen eh, daara je mbir la moo xam ne eh, benn liggéey Sëñ Tuubaa bu ko gën a ñor amul lépp lu ci waay di def itam nag njariñ lay doon te lu ci waaye di def itam dana taxaw taxawaayu sarax te fii ngeen nekk barab yu sor la yoo xamante ndax léeg-léeg ngeen bëgg a saraxe waaye du ngeen gis daanaka ku ko fi yàlla ku ngeen ko mën a jox lu ngeen ci def itam dana taxaw taxawaayub addiya lu ngeen ci def itam dana taxaw taxawaayub dundale bi ñu ko déggee noonu nag ñoom ci seen coobare ci loo xam ne lu luñ ci dara waaye dégg guñ ko dégg ak fa wax jëmale moo tax ñoom ñëpp ñu daal di ciy sóobu bañ ca sóoboo nag ba doon mbooloo suñu saaxa ci boppam daal ne loolu kat mun ci ñàkk a royee ci yow ndax gis na ni lépp looy digle danga nga ciy jiitu def ca ba def ca loo xamante ne ni ñeneen ñi ci des sax duñ ko man kon nag lii itam ginnaaw moom mii moo ko ciy xalaatam la jóge kon fokk moom da ciy ànd rawatina nag bi nga xamante ne ni xam na ne njaboot gi yëpp dañ cee war a ànd ak yow ci liggéey bi moo muy liggéey soxna si mu ne woon na kon léegi na ko tàmbali fii am ñu mu ko jot a yëgal yëgal gi sax yaatoogul lool ndax dafa xamul xaj na noo koy déggee ak noo koy gisee mu ne woon léegi na am na ñu ko jot yëg ñoo xam ne ci seen coobare ñoom itam nañ ci tàmbali e, ngir mu mën a xam ne ñi ñi nga xam ne dégg nañ sëñ bi di ko e, sëñ Isaaxa di ko soññee e, ñoo ñu xam ne sëñ Isaaxa mi koy soññee moom moo ngi koy soññee waaye itam téewul ma ca bi mu ci waxtaanee sëñ Alaaji sëñ Fàllu itam sëñ Fallou ci bopp moo ko ci gën a xiirtal daal ko ne man loolu ma maa ko jiite moom moo ci jëkk a joxe e, ginnaaw loolu itam e, sa e, njaboot gi di waa Nafsi wa diini ñoom itam ñu ngi ci biir ca ndakaaru gee itam sëriñ jiili Sàll mi bokk na ñi nga xamante ni ñoom itam bañ ko déggee am na ñuñ ko jot a déggal foofa ba ñu ngi ci ak sa ak sa ak sa doom yi ak bokki taalibe yi ak wëllër yi ñoom ñëpp ngi ñu ci biir li ñu ci jublu rek nag moom mooy loolu ne eh, ginnaaw aw yiw la woo xam ne ab liggéey la bu ñor di aw yiw woo xam ne sëñ Isaaxa yéene na ko ñëpp loolu moo tax mu waxee leen ko noonu ñu déggee ko noonu waaye nag fitnaalu ci kenn bunduxataalu ci kenn gawu ci kenn itam kenn ku ci nekk yaa koy dégg rek xam ne lii aw yiw la nga fas yéene caa soobu ànd caag moom loolee nag la ne woon léegi lañ ci jot a dajale nañ ko indi fii mu toll ci juróom-ñetti million euh, ak ñaar fukki junni buñ ko dee xayma war naa nekk limu ñeen fukki euh, maam jaara ak juróom yoo xamante ne ni kon loolu dana leen war a mën a dundal ci at mi euh, buñ ñëwee fii nag ba jébbala loolu nga defee nag bu xamee yow ni nga ko bëggee bu boobaa dana ko gën a mën a yaatal ba nga xamante ne ni ñëpp danañ ci mën a joti te bu boobaa itam mu dëppoog ndigal kàddu yooyu la ne woon ko jottali fii Eh, ndax eh, gën daa leeral rek liggéey bi ni mu ci demee ak itam sama xel gën cee dal ci ne amul ci kenn kum ci buntu xataal wala kum ci fitnaal amul kum ci leeral moom lam ko la ko ci war rek mooy eh, jottali andi leen xalaat jottali leen ko ku ci soobu itam ku ci nekk dem sa coobare ak sa bëgg yiw rek moom ci nga ci nga sooboo daal ku ci mën a ànd daal ci mën a ànd bañ ko yemale ci daayira yi wala bañ ko yemale ci bitim réew wala waaye mën nañ ko ci mën a ànd daal ah, loolu def def def kuréelu boppam waaw waaw kay waaw loolu laa ci jubloon waaw kay ndax mu feeñ waaw loolu day def kuréelu boppam léegi itam def kuréelu boppam da nga xam ne moom mooy doon tàmbali ba loolu kuréelu boppam la moom noppi kon nag da nga bëgg mu yàlla léegi ñëpp bokk ci ku ci mën a bokk waaw loolu it moo nekk kuréel boppam. mooy loolu. <laughs> mooy loolu ci kaw nas bi rek. ci kaw nas bi rek nga xam ne daal bu njëkk bi moom moom ba mu ngi woon ci daayira yi. waaw ñoo ko doon def léegi da nga bëgg nag ku ci mën a bokk rek. ngeen def kuréel boo xam ne ku ci mën a bokk rek bokk ci. moom it mu jëm ci liggéey. mu jëm ci liggéey waaw loolu quoi waaw ah, loolu ju baax na. kon tubarkalla loolu dégg naa ko bu baax leer na tubarkalla loolu baax na tubarkalla waaw ah, ah, am na jërëjëf noonu rek la. moom liggéey bi rek fi nekk ñun ñëpp nas moom day day day day day tax euh, liggéey lépp lu ñu bokk nas bi moom da koy da moo koy defar moo koy moo koy awla maanaam doxin bu rafet doxin bu jàpp ni doxin bu noppale euh, doxin bu xam ne itam mën naa yaatu euh, loolu comme dafa mel ne loolu rek la loolu nag kon kon te lépp jëmit ci ci liggéey bi loolu tubarkal la yitte la rek yoo xam ne moom ju yaatu yaatu yaatu bokk ko mu jëm ci benn liggéey loolu loolu loolu tubarkal la ah, danañ noppal ñun ñëpp liñ bëgg daal loolu danañu ci gën a dimbali waaw liñ bëgg daal dañ ko bëggee loolu danañu ci gën a dimbali donc dégg nañ ko loolu bu baax a baax a baax tubarkal la jërëjëf ndax sëñ sa sa loolu lépp alhamdulilah yàlla tawfeex sëñ sëñ Isaaxa la ndax moo ko xalaat programme bu njëkk bi moo ko xalaat dem nañ ba gis njariñ li fa tabaarakallaa njëriñ li réy na lool ndax fa tabaarakallaa yaatal na man-manu fondation Maam Jaara bi yaatal na yaatal na ko lool noppal na ko itam kon nag bu ca dooleyaat bii nga xam ne moom ko moom it kuréel boppam la ci ñëpp ko loolu fatawaa galaaw euh, euh, mën na koo gaawal lool mën na koo gaawal mën na ko mën na mën na mën na mën na gën a gaawal dooleel gi waaw loolu <laughs> loolu rek la ndax moom dooleel gi feeñ na ci ba noppi waaye lu mu lu doole dooleel di gën a gën a gën a yokk rek mu njëriñ li gën a gën a gën a gën a gën a gën a bari loolu moom tubaarkàlla euh, wax dëgg yàlla alhamdulilah rabbil alamin loolu lépp ci xalaatam la jóge kon nag nañ ko xalaatee woon rek dama ko xalaat dama ko waxoon ne ko bëgg a jóge ci liggéey bële laa ko noonu la foofa dañ la doon waajal rek liggéey bii lañ la moo taxoon ñu doon la ko waajal lé nag liggéey baa ngi fii loolu la war na kon jëfe-jëfe na ko dama ko xalaatee woon gisee ko ne wax ak ko loolu la jëfe na ko fatawarkal jëf ji yàggul waaye fatawarkal la leer na lool fees na tabarkàlla alhamdulilah rabbil alamin yàlla gën a dolli suñu sëñ bi ban gën a ko gën ban gën ko mën a liggéeyal loolu itam gën noo gàtt noo ngërëmam rek ndax loolu rek lañ du ngërëm rek la ñuy wut ngërëm rek ndax liggéey kii rek la liggéeyal lépp liggéeyal ko ci liggéeyal ko rek la nekk mais wax li may ko tënkee ni mu tënkee boobam ci digg bi nañ gën a yàlla borom yonent bi jaamu yàlla liggéeyal yonent bi ñun nag kon bon nañu ne am na sañ-sañu ah, ay jaamu lañu ay jaamu jaamu yi moom suñu yoon nekku ci jaamu jaamu yàlla gi gi nu fi indi ak liggéeyal ko loolu sañ nañ ko ñun itam ginnaaw moom da koo tënk dafa tënk boobu ci diggante borom yonent bi tënk suñu bopp ci suñu diggante moom waaw waaw man dama koy gàtt sax léegi jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ bi <laughs> mu jeex tàgg waaw ndax loolu rek la maanaam bi benn la jëmu bi benn la waaw loolu liggéey <laughs> bi yàlla tax <laughs> jaamu gi waxuñu ko waaye kon liggéey bi sax yàlla rekk a tax kon lépp day dellu ci moom te moom it alhamdulilahi rabbil alamin moom it moom bor moo ko defal na mu ko defal yonent bi rek eh, la la ko defal yonent bi ci moom <laughs> kon kon moom loolu loolu rek la nekk jaamu yàlla lëggéeyal yonent bi waaye man dama koy gàttal ne jaamu yàlla ko sëriñ bi <laughs> mu jeex ndax liñ koy li ñuy lëggéey beeg jaamu ngeeg lépp benn jëmm bi la yàllaa ko moom waaw kon nag ginnaaw mën nañoo ànd mën nañu leen a boole man noonu ko noonu laa ko gàttale waaw jaamu yàlla lëggéeyal ko sëriñ bi rek suñ jaamu yàlla gépp waaw suñu jaamu yàlla gépp nga xam ne ndigal ak tere la bëgg bëgg lu baax ak bañ lu woon loolu lépp yàlla daal rek tax <laughs> sëñ bi ci loolu rek la nekkoon nekkul ci loolu la amul nekkul sax tënul dara lu boromam waaye boromam moo ko moo ko jox yonent bi jox ko ndigal mu nekk ci diggante boobu nekk ci diggante boromam moo tax mu tudd Abdullahi xadimu rasuli <laughs> jaamu yàlla surga bi yonent bi ah léegi nag kon loolu lu ginnaaw leer na. ñun muy am nañu sañ-sañu nag di jaamu yàlla di ko liggéeyal waaw kon mënoo tënk léppaat waaw jaamu yàlla liggéeyal ko sëriñ bi <laughs> loolu rek la gën a gàtt nañ ci góor góorgóorlu bu baax nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax baax lu pëste bi gën a wér gën a gën a gën a sell rek moom noonu la noonu la baax waaw bi gën a wér rek gën a gën a gën a jëf ji gën a sell rek rek la baaxee noonu rek la baaxee loolu um, këns moo xam ne kenn xamul fu mu yem waaw waaw moom suñu borom la moo xam ne kenn xamul fu mu yem tey ak ëllëg li duñ ko duñ duñ ko duñ duñu négee ëllëg njëriñ li fii leen koy yëgee bu wér a wér a wér a wér te foofee nag foofa lañ koy fekk waaw foofa nag <laughs> nit yi yàlla yi moom àjjana taxu a jóg ngërëmal yàlla rek leen tax a jóg moom tëluñu àjjana <laughs> kon kon kon kon nag xéwal gaa nga foofa <laughs> xéwal gaa nga foofa kon te te duñu négee du duñu ci négee fii leen ko yégee bu dëggoo rek bu dëggoo rek nu sax ci dakk loolu loolu kon duñu fii leen koy yégee bu demee fekk lépp foofu